سقم على إبليس ميل السجود تكبرا على الحجيم ذي الوجود شق على إبليس البرد على الحليم ذي الوجود يدعوه الباقي الخديم ذو الخلاف لخلقه لناره بلا خلاف أدله العدل المضل ذو الخيار وأنه عن الجنين ذو صيام طرده بكبه الوحدة لجملة النيران يبكي وحده يعتله لقد ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة ما أراد وسمع والبصر والكلام أغصته إخصاء به يلام لكل ذي إباء ظالم إليه حي وسميع وبصير وقع عذابه وما له نزول فالذين متكلم إلى غير جهد دون رد صائلا وجهك الكريم قلبي بركة للرضا تحدي واجعل بجاه مصطفى وفيه من أعظم الغرور والمعروف واجعل به نظمي فاضي الولد تفشي وثاني على النبي مجيب الدعوة آمين يا ربي واسم نوري وفيك بالمختار كل يميري وسل يا ملك يا مجيب على الذي بدعائي تجيب سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وخلبي غنمي وأبي عاطفيه وإليك محرم بكلام زي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتعاريفي عن القلوب من منسون العلم في كل يوم وسل يا أكرم يا أكرم سرمدا على من استفيت ثري وعلى سيدنا محمد وسلم وسلم ولا لوسلم وهب لي الإلهام والبراء وحسن اللسان والياء واجعل كتابتي نبي من قبل غيري وإليك يا محاب بكلام سجن قومي المؤمنين مخنيا من لومي وبالدعاء للقلوب من إيصال العلم في كل زمن وسل يا كرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه ولرفع كلمي وارفع برافي بشكر وقبول وأيد الشيطان مني والخبير وصليا وسلما سرمدا والرسول أحمد وآلي وسابي وهدي ما هي الخير يا مقبلي الحق لله الذي أسلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل وأصحابه وموالاه إلينا وجه خطابا تكرما وأنفذا أتابا فكنت خائلا عن جزائي أمي جميل جل عن نسائي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى بلا مشقة فالقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بكذا سلاما من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما وحب وكف عني سرمدا مهلا وبك لي كان وفاقني حتى شيرا الشر وهمني لا ساب المنى وكان لي بلا يزال المنى وأتسمي وعيوبي محو ورادني كل كنود جمعا وجادني بكون جنة شفاء بأول الأمتين كشفاء قلنا أن الرزايا فلا su yow pas-pasu boobee mën nañ àndandoo sëñ Tuubaa jox seen lépp sëñ Tuubaa faw pas-pasu bëgg sëñ Tuubaa dina ko laaj sa jëmm day nelaw ci jëm bi ku fa yeewoo pas-pas nag moo koy taal pas-pas moo yee yitte joojee sëriñ bi dafa wax ni bi xadril kenn bi taktasibul maali kon ci loolu rek la yem ndax taru mu ko di dem suma tanaamu layla laqad atmamta nafsaka fi muhaali maa ngi jégalu nag xam naa ne ñun bi mu euh, mel ni li fi jaar ci ay kàddu bi dégg ko sëñ Ndonga leeral na li jiitu sama bopp ndax boobu ba ñuy liggéey bi tàmbalee ci njëkku liggéey ci la bokk ci ña nga xam ni mën naa ni ñoo waral waxtu wu dem di si basal mënumaa am gàtt mënumaa am lu gën rëy. la bàyyi ndax ku tudd Cheikh Babacar Ndiaye Thiagal say maam la xasul ànd ak Cheikh Babacar Thiagal kon ñun amul su lépp daasee kon ñun ñoo ci war a ñëpp waaye rafet ngeen rafet jot ci ne fu ñu yéen lañ fa nekkal yàlla seede na ni démb rek ñu ngi yenn ci daaris bi xam suñu suñu chahir ma xam su ko si dama mu doon def ko nga xam ne ren defuñu ko daanaka ñenn rek la seen boor bi def ko maa ngi ko yëgal ndaje bii di ko leeralal dara ci pas-pas bi la kon mel na ni ñi ñu fi fekk ci ay kilifa wóor nañu ne sëñ Tuubaa rek la ñu génne euh, day mel ni nag xam naa ku dégg ni jotaay bi demee su fekkee ne seen dégg des na mën ngaa jàpp ne dañoo daje ngir euh, ñu sas yu bees wala ñu daje ngir di jàngale nit ñi ak taalibe wala nga jàpp ne xëy dañoo yor loo xam ne daal. lu ñu war a digal nit ñi ñu digle ñu tere bi waaye sañ nañ nag digle si jumaa yi nga xam ne génn benn murit ñuy dajale ci soññ loolu sañ nañ ko sañ nañu itam pas-pas yooyu nga xam ne wóor nañu ne seen maam yooyu jeexalal seen dugub ci seen jumaa tam beral leen ne doon rek sañ nañ ku bokkal pas-pas nag ñu ànd di ko waxtaanee di ànd jëf-jëf jotee ñu ànd jëf ko loolu sañ ndax ku déglu leeta boobu seen laa doon wax mel na ni loolu ndigal loolu joxam ñëpp. fay liggéeyal Sëñ Tuubaa noonu la war da ci dal ndax ay ndaw yoo xam ni dañuy xëccoo ndawi jamono ndax lu su kuréel bi rek fi nekk yeneen i kuréel sëñ may daa wax ni ku nekk am na këram jàpp yóbbu këram kii naar yi moo di këram kii ajjanaa di këram waaye nag lan wuy ji bàmba bi kenn du sopp nitam di xoyom ndax saytaan yi moo di noonu waaye yàlla bi fekkee ne dafa am ay kuréel te ku ci nekk projet bi bi maa leen di day mel ni buñ góorgóorlu ci ñun ñii gën ci tàggat ñu ko bokk ñu ci yëngu di ko ni diggante bu gàtt ci ginnaaw bu ni bari waaye fii ne ngeen seetloo xew am da ngeen di jékki daal si dégg fa xew-xew yoo coow la ak yëf yi na muy bindoo day mel ni loolu suñ ko bay bayalee wala gaawuñu def liggéey mel nii dana mel ni bari dana dem soxla te sëriñ Moussa ba muy wax ne kabaa ci baag mexee ci pincum làmbaay yi Seex Aliyu tuxal na làmb ya saxat falaay lay xëyoo yi dëkk loolu te nun kat sëriñ bay ba muy jógee mexee di gàddaay naam ci ndigal sëriñ Tuubaa la woon mooy bari nañ ko métti woon ci dëkk te nun ñi kat moo war a fexe ba suñu kàngam yooyu boo dajee ñoom ëllëg fa kanam seen tubaab ñu xam ne seen lëli boobu ñoo ko mën tey loolu nag la seen Mouhamadou Moustapha di wax ne man Moustapha dina di woon daal def ne kenn ku ci nekk nañu dimbali sa bopp kon day mel ni seen ndongo yi seen ko ndax seen bay dene koo xam ne kii yoonu yéen a bokk ak teer bokku jëmu man ngeen a ànd di muy bokk yi wax yi nag jëf koo xam ne nii nag bokku leen ak teeru boo ko gisee muy jënd kay wàcc tàggu leen wax ak

di fexe di gindaloo boo xool liggéey Cheikh moom mu taxaw mu taxaw mu def ba ci démb yoo xam ne dafa wax ne seytaane suuf biir ko kon mu xam ne loolu tàggali ko ki liggéeyu Sëriñ Tuubaa liggéey liggéeyu seytaane la ànd gi muy bëggu sëriñ bi sax mu doon safaare dara wax ne ma Sëriñ Tuubaa boole yéen mi ngi nii ma téye sama lu ma leen ko jox ndar bu ñu liggéey noonu booloo doon benn su ngeen booloo nag man Moustapha danaa def li des ci sama liggéey muy fexe ba dajale leen boole leen ngeen benn loolu sëñ bi liggéey liggéey bu rëy da ca mën a juddoo kenn xamul lu mu toll daa fexe ba jëriñ nit ko ci sëñ Tuubaa suñ xam ne du nangoo naa ci awlem bi mu ne ah man de xanaa dañoo yaakaar sama daara yi ñu ci jàngale alxuraan naam maa ngi ci jàngale waaye li tax ma fexe ma fexe ba nit ki di jàng xasida mooy damay yëg ne koo fexe ba di ko jàngalu xasida ñi ngi gën di yokk ak bëgg sëñ Tuubaa bu la gisee bu la gis ñu ngi gën di bëgg sëñ Tuubaa ñun ñii di wër bitim réew ku ne xam na ne ñi fi jóge woon ñu ci bare bari ba ñuy dem mu si travé rek li ñu waaye boo demee ci day yi nga fekk ñu xam pas-pas yañ tax da lay wóor nit ñi foofu lañ ko amee te xasida yi leen topp sàmmal leen seen ngor sàmmal leen seen pas-pas bañ si am lépp lu baax ba pas-pasam seen tubaab yi ci nit ñi waaw nag nday topp leen yorom yar ah. ab sëriñ topp leen fi digal sëñ Alhaji daa wax ne xasida yi bu la digal di la tere da nga koy jàng rek ñu def yow ko def ka nga daan àndal di football mooy téye bal bi damay dem seen ñu jàll mooy téye si keneen ba ba muy lakk ci loxo ngir bi la ko nëbb te yéen a daan ànd di rek ñu ne ku la ko defal sa diir dund amul fay sëriñ bi dafa wax ñaan naa saa borom ba xasida yi di képp ku koy xëy di yër suñ borom ñaan naa ko ba moo lay yaar boppam wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla wa bi kalaami wa bi ishaara ihdi muridan yatlubul inaa kon kuy wut anwaaru muhammadiya dara ci leer muy ndax salli salaata laa tazaalu saati'a anwaaruha kulli hijabin qaati'a ñaan naa saa borom ba leer yi fenn ba xas bi. mboolem tiire yi ñuy dox diggante jàmm bi borom xasida yi leen xasida yi dox ba ca xileen ba mu daal di leen wala rasuli junnatan an kulli daa ñaan na ko ba bind bi ak daal di ci ay caaxaan loolaa lay dox sa diggante xasida yi dox sa diggante loolu loolu ci wa jaal kitaabatiya kal amali saalihaati mboolem di jaar di ci wut boromam jàpp ne lii jëfi saalixaat mu mu wax ne wa jaal kitaabatiya min sal وقليل التفشير والتالي الذي ابدا ما عرف lii la mu def noo ngi doon jéejoo ba lépp lu ba fu ne jaar na ci waaye dañoo xëy seen te loolu kenn koo ci xam ne sa gor toll noonu koo ci xam ne noté sa bokk sa bakkan noonu yaa dem ba xëy na gis yëg lépp loolu nag ko def ci kon ñun suñ kuréel gii néew na dafa fexe ba sësaloo xol nag sëñ bay jax danaa xam ne mbokk ka bokk ak yow xol bu bu pas-pas yi àndee ñu ñu la sëriñ wax lu am solo mooy di dimbale ci suñu biir ndax daayira dafa wax ne daayira bi bu sosee ak dafay i dox te fexe bay dimbalante dimbali nit ki ci fexe ba dimbali ko ci li muy jariñu diggam ak koy juróom ndax liggéey bii kenn waru cee nekk tuuma di la def bu loolu amee rek xasida daa tàmbali ab liggéeyam ci kooku te noppee waaye bu xasida noppee ci di ko yaan rek a war a te xasida yi lu nit di jàpp ba ñam bàyyi ñam bokkal ay wéju sans def ko téléphone ok xasida yi la nit di nekk jàpp ba far ko am luy dinkaan mën ko dim kooku te at yu ndaw la yow nun nag noo am te soli boobu nga risque mel ni ba comme soixante-dix ans ay bari yu ndaw kon noo war a dàqali nit yi noo war a gën a jub ñëpp perte yii de am ci addina la ñu dina ko tuumaale noonu noo noo ci a dindi lu tuuma seen tuuma ndax bari na li ñuy wax yoo xam ne seen bëri ko foofu kooku ko masaa wax sax su sëgg lu dana la jënd foofu sëriñ bi dafa wax ni indi abdullahi jàll wa xadim lil mustafa alladi abtilaahu yéen moom day xam na ne yàlla rek moo di ab mooy buur bi war a jaam liggéey bi tam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te moo ne day dem na ba suñu jël jëmmi Sëñ Tuubaa ji kawe ko ci mboolem bi def waaye moom daa tànn moom Abdoulaye waxati récompense moom nañ bokk ci ñi nga xam ne kenn du bëgg rek dugg ci Sëñ Tuubaa di gis ci yow lu lay yore te loolu dara yëpp ca léegi baa nii seen ndongo yow baa ngi nii ndax mel ne booy xool ay ndaw yoo xam ne xëy na mënuñu sax dajale dara ci dëkk bi te teewul ñun li gën a yomb lañ man mooy alal joxe xaalis waaye ñun seen i bakkan seen jot ku nga xam ne dëkk xëy na nuru nuru amul jot waaye man damay wax ne ki ma gën a daaneel ci xasida mooy kii jàng di yàq nit ñi di ko reetal kii door a tàmbali mu jàng ndax damaa xam ma faa jaar ma faa jaar ndax mbir boo fa jël dama faa jaar ndax mbir boo fa jaaree ba ñi la gën a jege jàpp na yow da ngaa da ngaa wéri man jaar naa ba ñi ma gën a xaritoo ci addina woo ma ni ma jàpp ne dañ ma war a yóbbu seen jëmal mu jaar na fa kon bu ma demee ba yéeg seen jubaa di ko sant ba man bu ko ma mel ni kenn ñi ma seen jubaa def day kon ku toll si jaar waaye yooyu ñun ñoo ko war a gasal nga tudd ko dimbali ko ci dimbali boo xam ni dañ koy woomat ci pas-pas woomat ko ci ci nite nag ndax Serigne Aïssa dafa woon Serigne kenn ci man ñi dama fàtte turam ne kon ñoo ngi xëy nit suñu war koo ci xam ni boo demee fa barabam suñ bi boo ko fekkee mu ngi liggéey nga jàpp suñu ndongo mi loolu rek la man wëlbati ko waa neer ci sëñ Tuubaa li moo di taar mooy taaru lislaam te nitu Bawol loolu lañ ko xamee loolu tax kenn du yem te sëriñ Mbay Jaxate kat ba muy wax am murid lu tax sëriñ Tuubaa sant ko jaajëfi sëriñ Tuubaa daf ne murid lay waral sangam ba sant ko nii la ñu ne ko nen la mu ne day ci toolam ak néegam di waxtaan ak murid ci liggéeyam wàcc jotee te kenn ko gis ci génn kër gi soowoo ak ay caaxaan ak ay sàkk lu murid ndax murid ku ci génneem yar te génne ci aw ndigal te génne ci lu ak jàpp loo ko ci ak yaram woote bi man day dañoo gàcce lool walaay la ma si bi mooy moom maa ngi Tuubaa ndax xëy na liggéey yi yaatu ba ak foofu waaye aw ma ñu leen gën a ndax kuy wàlliwaan sa kër da tëggu sant naa yàlla nag bu ngeen ma comprendre ba xam ne addina soxla da ko moom mën naa able waaye da ngeen xam ne sama xol ak sama xel du fi jóg benn yoon ndax xëy na ma ngi diggante ak yéen waxtu wu xëy na sama ñàkk passif ak sama motali doomu aadama rek la waaye damay yëgal sama bopp ndax damay yëg ne samay nawle laa toog bu fekkoon ne dañoo bokk ñu dëkk lamba yi ñun ñëpp sax kenn ku nekk ci sëriñ bi wax ko ci dàtt maam ñu bokk rek war naa bokk tax ñu bokk rek mais nag lii li tax ma gën a yëgal sama bopp ba jàpp ne damaa war a ñu fekk si ci wuy bi mooy pasos bi ñu ànd ni pasos si ndax mooy li nga xam ne nag buñ ci buñ taxante wu loolu rek moo ngi def ndax sëriñ bi kat sëriñ Malick Bassine si sëriñ Maxari Pende si ñëw na ci sëriñ sëriñ lu ngeen bokk lu bokk ñu wax li nit ku gën a jege ak mbokkam gën a jege mooy mbokk ndey baay mu ne leen bokku leen dara ngeen bokkee rek xam ne lii nu bokk kenn ku ne ëmbal na ci sa morom yërmande yoo xam ne ak naa ko mbokkal baay sax amu ko ci ñun ñii ko ci ne sa yitte sa morom xam ko moo la gënal sax ci nga bokkal ndey baay xam kon noonu yi bokk loolu firnde wu ne dañoo am bokk waaye koo delluwaat ci lislaam démb da nga xam ni muhaajiru yi keroog ba ñu jógee Màkkata Mukarram dem euh, dem la dem ci lanseer yi Madina Munawwara ku ne xam ne ni ba ñu demee dañoo bokk seen lépp kon nañu xam ne lii mën naa sew lool waaye lu ci bëgg sa jiw mën nañu ko defal bu taxee ni ko ci nitee te euh, ndax ne ci ron kilifteef dafa metti ne say kilifa dafa metti waaye ndox bañ ci amee ndigal ndigal moom bañ ko xasee déggatuñu kenn ci lenn sa sa ndox yi nag nanga ma nga ca ku nekk sa ginnaaw rek la ko waaye na sëñ bay waxoon rek fësal tëwu yi nit balaa jiitu kemam xaw a xëy jiitu say kem ci bu wett kat defe waaye nag lu ñëpp def ku ko def doo man lu yem fa ku bëgg nag def lu mbooloo mépp naan defe na waaleykum salaam